ma ku ma fay salaamaaleykum ñëpp. salaamaaleykum ñëpp. maa ngi d'abord di jégalu ci yéen ñëpp ci guddee bi parce que depuis 15 heures yéen ñëpp bàyyi ngeen seen soxla ñëw toog simplement parce que danoon li ngeen di def moo leen ñor moo leen intéressé kon maa ngi leen di jégalu ci xaar bu yàgg bi maa ngi leen di remercier s'il vous plaît bruit bi ci ginnaaw may ma tuuti rek ma yeggali maa ngi leen di remercier euh, di am sama xol dafa sedd ba mënuma xam sax fu may tàmbalee tellement que je suis gagné par l'émotion je voudrais saluer avec beaucoup de déférence monsieur le ministre de la santé suñu tête de liste Dakar muy le ministre Abdoulaye Diouf pour ñu ko xamul nag Ablaye moom fii këram la ndax fii la tàmbalee AFP nag Ablaye bienvenue chez toi maa ngi nuyu le ministre Seydou Gueye qui mérite des applaudissements de votre part je voudrais saluer ki nga xam ne sànq bi ma gisulee Diouf Sarr moo fi njëkk ñëw muy madame le ministre Zahra Iyane je voudrais nag particulièrement un concert d'applaudissements un concert je dis bien d'applaudissements pour celle bi nga xam ne ñooy ànd di liggéey ci commune bi muy madame le ministre Ndeye Bouté Gassama dama doon roof ñaari jigéen ñi rek pour génnaat ci beneen ministre bu nga xam ne ñëpp miin nañ ko saa yu réew mi amee jafe-jafe saa yu président soxlaa ku ko defaan kenn du ko njëkk ci plateau yi muy la grand ministre Serigne Mbacké Ndiaye su ma nuyoo ñooñu nag dama bëgg ñu yónnee madame Badiane ministre d'État nuyoo ñu yuuxu ba mu dégg ko fi mu nekk toogal parti nekk maa ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk góor ak jigéen di remercier les responsables de parti damay jukki benn jigéen jukki benn góor pour la symbolique damay tudd madame Binta Ndiogu nga xam ne bu ma ko tuddee bëgg naa mu yóbbaale jigéen ñëpp di présidente nationale des femmes bu LDR Yeesal dama bëgg aussi nuyu koo xam ne présence am fii dafa am solo mu bokk muy le responsable du parti démocratique sénégalais dans la commune nekkoon adjoint au maire tudd Pape Massoji Ba ñëw ànd ak ñun suñu liste. et eh, monsieur le ministre lii dañu bëgg nga gis ne c'est une symbolique donc partout en tout cas il y a des réalités te ñun loolu mooy suñu réalité fii. sama kàddu nag du ci bëri les principaux candidats. ou les candidatons ñi nga xamante ne dañuy xëccoog le véritable candidat habite à Mermoz Sacré-Cœur suñu mission suñu mission mooy fii leen leen di téye du ñu jàll ba yegg di sonal Diouf Sarr est que d'accord nañ ci est-ce qu'on est d'accord sur ça il y a candidat qui fait beaucoup de bruit énormément de bruit nit ñi foog ñu xam les enjeux véritables Dakar n'a que trop souffert de la politisation de son institution municipale ñun ñi ay conseillers municipaux la ñu conseillers municipaux la ñu mais lan lañ fi def ci Dakar est-ce que dañu war a jëlaat mairie bi dénk ko ñoo xam ne dañ naan damay xëccoog président damay dal ci kom damay xëccoog ñoom non on a besoin d'une personnalité bu am expertise bu am expérience koo xam ne mën nañ ndakaar Ndakaaru fi mu nekk yóbbu ko ci beneen point et ça je pense que nous avons le meilleur profil c'est le ministre Abdoulaye Diouf Sarr fi ñu nekk nag nous sommes à Mermoz Sacré-Cœur ma fàttali ne fii commune bi ki ko yor na ko presque depuis douze ans wër ci rajo yi naan non au troisième mandat ba pare di laaj troisième mandat quel paradoxe quel paradoxe ba pare nag il s'appelle jazz nous l'enverrons simplement écouter du jazz parce que dañu jàpp ne il a fini son temps li fi waroon def bu ko fi deful ci treize ans du ci cinq ans la koy def en tout cas ñun nekkuñu ci élection nee na moom mooy le maire de Dakar mais ñun de toutes les façons fii lañ koy téye ba du tal mairie Dakar parce que Dakar benn locataire la nar am pendant cinq ans kuy diisoo ak président de la République kuy xam li président bëgg ci Dakar parce que Dakar la reconduction de Dakar passe véritablement par une personnalité qui comprend les enjeux Dakar warut nekk bal boo xam ne. ñoom ñi naan dañuy bëgg Dakar xam nga lu ñu waroon wax dañu war a joxe Dakar parce que 2009 ba tey jii taxawu Ndakaaru moo yore Dakar 2009 ba léegi kon kay ñoom xam nga fuñ leen di xaar ñu defal ñu bilan nañu bàyyi bàyyi ñu yóbbu leen parc de Hann seetaan leen maa ngi leen di gërëm di leen sax